état bu Sénégal Diomaye Faye nag ma ngay fixé cap bi ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ni daal bu ñu bëggee jëmale réew Sénégal ca kanam faaw ñu ànd ak ay tabaxkat yoo xam ne rek te du loo xam ne rek dafa jëm ci suñuy moomeel te loolee nag leen rek moo ñu ko mën a may moo di jub jubal ak jubbanti dafay am solo nag ci kenn ku nekk ci ñun nag saay boo gisee loo xam ne rek jaarul yoon nga daal di joxe ay information yoo xam ne rek daañu ko lijjanti ba mën a teg ñëpp ci wàllu Bassirou Diomaye Faye yi nga xam ne rek daal na koy yëkkati nag yéenekaay bi ne moom njiitu réew Sénégal nag ma ngay invité agent yu état bi nag ngir ñu daal di doxal yoon Les Échos yëglekaay ne rupture bi kay jamono ji nag tàmbali na Bassirou Diomaye Faye ma ngay encensé fonctionnaire yi nag waaye ma leen di dànkaafu ma xam xamle ci biir yëglekaay bi nag ne faaw ñu daal di incarné nag lii nga xam ne moo di jub jubal ak jubbanti nag ndax bu ko defee rek ñu mën a doon ay exemple ci li nga xam ne rek moo di suñuy jëf te loolee nag liggéey rek moo ñu koy may bu ko defee ñu gën mën a sàmm nag lu jëm ci moomeelu askan wi nag nag l'info yëgle kaay feelu ko ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag ma ngay woo di agent yu fonctionnaire yi kay moom jiitu réew mi ma ngay dellu suwaat ci loi bi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu code transparence bu gestion bu finance publique nag jëm ci lépp loo xam ne rek mooy leeraange tënk waaye nag ma ngay sàkku nag ci comportement éthique ak déontologie nag bu ko defee agent yëpp nag mën caa tënku ngir mën a moytandiku nag lu jëm ci wàllu luubal gën cay tudd nag ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne ñun agent public yi nag dañoo war a am taxawaay nag bokk na ci xippi suñuy bët rek jëm ci doxalinu suñuy ressources source xool nag nu ñuy signaler lépp loo xam ne rek ay rëq-rëq yu ko mën a gàllankoor la mbaa ñu ciy nemmeeku nag ay mbuxum yoo xam ne ñoo ngi ko ciy amal loole nag bu ñu ko defee rek mën nañoo jëmale Sénégal ca kanam enquête yëglekaay dikk tey ji nag ci passation de service yi nga xam ne rek amal nañ ko ci ministère yu bëree bëri yéenekaay bi di xam ne nag ne fi mu toll nii nag ci jamonoy jëf la ñu toll passation de service yu bëri nag ñu daal di koy amal ci mode fast track nag waaye àndul ak benn xumbeel moo xam ministère de l'économie wàllum finance forces armées ak wàllu industrie nag ñoom jébbal nañu leen lenge yi Mamadou Moustapha Ba di xam ne ci biir yëglekaay bi ne am na yaakaar nag ne liggéey bi ñu ko dénkoon ngir mu doxal ko ci biir réewam nag def na ci ay jéego yu am solo l'observateur dellu soit ci passation de service yi nga xam ne rek doon nañ ko amal démb ci biir Sénégal yéenekaay bi ne jëwriñ ñi kay jamono ji nag ñoo ngi ci diggante engagement ak défi passation de service bi ñu doon amalee nag ca bopp ministère d l'économie des finances et du plan Moustapha Ba nag di jébbal lenge kii di mi nga xam ne rek mooy ministère de budget et des finances ca doon amal yëglekaay bi nag di xam ne ne nag moom jëwriñ ji daal dina fay défendre nag li nga xam ne rek e moom la daal am lu toll ci 7000 milliards yi nga xam ne rek daat nañ ko ciy dugal ci atum ci biir yëglekaay bi di Le Quotidien Abdourahmane Sarr nag ma nga fay xam ne ni daal li ñu gën a bëgg jamono ji nag te war caa taxaw saa si tembe bokk na ci daal di nag ci dépendance bi ñu daan def ca lay point du combat Mamadou Moustapha Ba mel na ku leen tontu nag ne avenir dinañu juger bu fekkente ni nag def nañu dëgg-dëgg liggéey bi nga xam ne rek moom lañ ñu dénkoon Sud Quotidien moom dellu si tey jii nag ci liggéey nga xam ne rek doon nañ ko amal réew Sénégal yéenekaay bi dellu siwaat ci njiitu réew yi nga xam ne rek ñoo fi jotoon na jaar ak pension yi nga xam ne rek moom lañ leen jagleel wàllum loi yi wote yi nga xam ne rek moom lañ leen jébbal sécurité bi leen di aar personnel bi nga xam ne rek ñoom la ñu daal di àndal ngir ñu leen di taxaw jëm ci seen ay càkkuteef yëglekaay bi ne ay njiitu réew yoo xam xam ne rek seen lépp dane gongo ci jamono joo xam ne rek góorgóorlu yi ñu ngi ciy jafe-jafe ci réew moo xam ne rek li mu gàlloo ci ay bor nag jéggi na dayoo wàllum bor boobee nag Walf Quotidien dellu suwaat na ci service de dette yi nga xam ne rek moom e tey ji ab gëstu la def dem ba ca kanal nag ngir dellu suwaat nag ci càq boobee nga xam ne rek njiitu réew bi fi falu fii ci réew Sénégal daañ ko ko takkal nag mu di càkkub or boo xam ne rek ca Léopold Sédar Senghor la woon Bassirou Diomaye Faye yër leen boobee yëglekaay ngir xam ana fu càkk boobee bàyyeekoo Rewmi People tey jii mi ngi doon dalal nag Philippe Coly di ab artiste chanteur boo xam ne rek waxtaan ak Anna Thiaw waxtaan wu yaatoo yaatu moom acteur boobee nag dellu siwaat ci carrière am yër leen yëglekaay tàggat yaram la àddu jëmale ak super coupe bi nga xam ne rek doon nañ ko amal yéenekaay bi ne Al Hilal bu Kalidou Koulibaly nag daal di nay écrasé nag Al Ittihad daal di remporté